xibaaru biti réew yi. dañu koy dooree ak réewum juróom-ñeenteelu ajjuma ñaxtu ya di gën a tar jamono ji nag dañoo wàcc ca mbedd ya tey nag ñu tànn ko mu tase jullit ajjuma bu mag gi nga xam ne jullit ñi dañ ciy dajaloo góor ñi jigéen ñi ak ndaw ñi wàcc ca mbedd ya yor ay pancarte di ca fesal seen ak naqar ca jamono joojee nag way takk dee ya nekkoon nañ fa waaye mu mel ni fasuñu fa ndax ay nit ñu bari ñu fa nekkoon jëm bariwu Mali Soumaïla Boubèye Maïga di ilimaana jëwriñ ya jafe-jafe yi nga xam ne am na ci réew ma rawatina lépp loo xam ne jëm na ci ñàkku kaaraange loolee nag sababoon ñu bàyyi faataate gi nga xam ne amoon na wàllu tollu nga xam ne nag jotoon nañ faatu ñu dem ba Libye ñaar téeméeri nit faatu nañu gannaaw njong bi nga xam ne Khalifa Haftar amaloon na ko gouvernement d'union nationale bi nga xam ne ma nga samp te Tripoli te am mandat d'arrêt lalu ci ndoddu Martial Haftar nga xam ne bokk na ci li sabab cong googee militaire yi amal ca ñeenteelu fan fan ci weeru avril ba léegi ngir ñu mën a contrôler capital ba kuréelu woy mbootaayu xeet ya di xamle ne jàmbar yooyee jot naa faat lu ëpp ñaar téeméeri nit ak juróom-ñeenti téeméer ak fukk ñeenti yoo xam ne jot nañu fa am ay gaañu gaañu. ñu dem ba RDC di république démocratique bu Congo gannaaw bata ba fa suuxoon te ñu bari faatu woon ca njiitu réew mi di Félix Tshisekedi demoon na ca wetu la Kivu fekk nag ca jamono jooju nappkat ya nga xam ne nag ñoo ñoo réer njiitu réew ma nag yëkkati kàddu jëmale woowee xam ne ne ci géej gi kenn warul di ca dem ngir ñàkk sa bakkan ma ngay xam ne ne ku taqee ca loolee wala nga laala ca ay daan dina tegu ci sa ndodd daanale ko ak mu Russie doomu réew Ukraine ya nekkee foofee dañ leen a xañ vote ba ca ñaareelu tour ba mu nekk nag jongante boo xam ne dafa dox ci diggante ka fa nekk njiitu réew ma di Petro Poroshenko ak Vladimir Zelensky nga xam ne nag moom moom jamono ji am na doole loolu waaye nag doomu réewu Ukraine dañ leen a gàllankoor ca vote ba ndax ubbi wuñu bureau de vote ya seen ambassade ba loolu nekk loo xam ne ñu bari ñu ngi koy naqarlu jërë ngeen jëf bokk yi li leen leen indiloon ci xibaari bitim réew yi